mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. dal leen ak jàmm mbokki internet yi ñu leen di nuyu bu baax a baax ci seen chaîne YouTube Reubeuss TV seen émission toj toj comme ni ñu koy waxee saa su nekk waaye dama ciy feggoog sama rakk ji moom bu ndaw càmm eh, nuyu ko siyaar ko jox wàccu waayam waaye mbokk yi comme ni leen ko waxee rek moom toj toj fépp foo xam ne rek am na fa moo xam ci biir réew mi lay doon wala bitim réew dañ naan coow dem jëli la fa nekk indi ko fi waxtaane ko waaye man ak yow ci kàllaame ko ci lay doon ci kàllaamay Kocc lay amee moom émission bi li nga xamante ni moo di toj toj ginnaaw bi ma ko nuyoo di ko jox wàcc waaye moom sama man di Youssouf Fall di am mbégte feggoowaat ak moom ci biir émission bi mm-hmm. suñu mbokk internet yi yéen tamit maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a safoo suñu chaîne YouTube bi la di Reubeuss TV mm-hmm. comme ni ñu koy defee nag uh, saa su nekk duñu ci tàyyi duñu ci sonn di leen dugal fépp ci biir réew mi ak uh, bitim réew lépp lu fay toj toj ko fii faram leen ko ba tax na yi nga xam moo di Pikine Pikine nag bañ demee lañ fa fekk mu nekk lu doy waar koy toj ci koo xamante ne nii nag moom dafa am doom ju muy tëddee lu toll ci moom nag doom ji ci fukki at ak mu euh, ngi gàdda xale ba ci biir kër ga te naan ko li wax mu ni mbokk yi loolu toj toj la waaye na fay des ba tey ki u jàmbur mi ngi koy wër gisagu ko mu mel ni mbokk loolu toj toj la waaye su ma jógee foofu fekk damay ñibbisiwaat fii ci Ndakaaru ca corniche ba ci caméraman boo xamante ni moom nag benn soxna démb nag dafa doon bëgg a liggéeyam waaye mu mel ni takk der def na liggéey bu am solo ba tegle seen loxo ba fi ñu wax ak yéen ñu ngi ci euh, brigade euh, mobile bi nga xamante moo nekk ca Koungheul mu mel ni kon mbokk yi dama naan euh, wàcc sama kàddu fii laay wax rek jox sama rakk ji bu ndaw caam moom tam mu yéeg te yaatal li mu indi macha allah Youssouf Fall ni am na solo ginnaaw bi nga demee ci say diwaan ba mhm. jot fa say inform say yu am solo macha allah mhm. man da du ma def lu dul dem de coow fële nga xamante ni moo di Ziguinchor Ziguinchor nag dañoo yegg ca hôpital régional ba fekk fa lu daw tamit seen aw toj-toj ndax euh, benn ndaw soo xamante ni moo fa am doom ak ay seex ñu toll ci ñeenti xale ñoom ñëpp daal ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw bi ñu juddoo ñoom nag ne nañ dara waralul ñàkki bakkani xale yooyu ndax euh, hôpital ba daal moo amul jumtukaay yoo xamante ne nii war nañoo mën a accueillir mm-hmm. euh, lu mel ni genre seex yooyu mm-hmm. ginnaaw Ziguinchor nag dañuy demandi fële nga xamante ne nii moo di Saly Saly nag dañoo fekk benn waay yoo xamante ne nii moom ab papa la ak njabootam dem ca plage ba ngir daal euh, jël fa euh, féex comme ni ñu koy waxee ci jamono tàngoor ji nga xamante ni ci la ñu nekk ci noonu nag la kenn ci ay doomam bëggoon a lab moom it mu daw dugg ca biir ndox ma pour euh, sauver ko ci noonu nag moom la ko ndox ma yóbboo moom papa jooju waaye xale ba moom mujj nañ ko sauver ba fi mu nekk nii ma nga ca ay mbokkam ginnaaw euh, Saly nag euh, Youssou Fall dama fàtte mais dama naan coowu delluwaat fa li nga xamante ne nii moo di Ziguinchor mhm. accident bu métti ba nga xamante ni am na fa barki démb mhm. ay xale yoo xamante ne nii ñoo jugee woon ci benn soirée doon ñibbi ca biir ville ba mhm. ñoo doon daal course kan moo war a mën a njëkk a yegg ci noonu nag la kenn ci ñoom doon wuyoo ci turu Pape Seydi def benn accident ñàkk bakkanam ci saa si xaritam ba mu àndaloon nit loos war damu mu jaaree fa am moom tamit ay gaañu gaañu yu méttee méttee métti ginnaaw euh, Ziguinchor xamante ni moo di ndakaaru fële ca médina foofu nag euh, benn euh, moom tamit papa la nekk waajur wu góor mhm. moo euh, porté plainte doomam mhm. ba guddi yi ñuy wax ak xale bi mi ngi fi nga ni di 100 mètres kaso bi nga xamante ni moo nekk fii ci rëbës mhm. moom papa ji nag nee na doom ji daal dafa nekk ko xamante normalul ndax day tux yamba di naan sàngara te yi tamit day dorogewu waaye xale ba nag na tuuma yi ni mel ndax nee na papa ji mësu koo bëgg saa su nekk rek nii lay di deram ci biir dëkk bi ah, ñu koy waaye na ko leer ne même bu dee fukki at la sax bu génnee dina faat papa ji moom xale bi euh, kàddu yi la mujj yëkkati Youssouf Fall ëpp naa def loolu bu yëkkati ne ko teg ci suuf ndax sa waajur wu rek sa sa waajur la euh, na teg kàddu yooyu ci suuf ndax euh, mu solo donc moom tam fa mu nekk ñuy ñaanal yàlla jële ko fa te fa jógee tamit yàlla ko yàlla soppi bu ndaw ndax loolu mu mel ni doy moom doy na waar wax yàlla hmm. doy na waar torop acca kon nag buñ jógee ci loolu ñu dugg ci suñu xalaat ay suñu xalaat jërë ngeen jëf euh, suñu xalaat nag tey di euh, waxtaanee ci loo xamante ni wax na ni mi ngi bëgg sax yaatu ci réew mi muy ko am sa doom ba pare di ko tëddee mu mel ni euh, feccee Pikine la fa xew mu nekk lu doy waar am doom boo xam ne fukki at ak benn la am eh, nga koy tëddee waxoon tuma la dara sax nga tàggu waajur bu jigéen takkaat beneen soxna waaye nga gàddee xale bi ci biir kër gi te naan ko li ñu seeq wala li ma lay def bul ko wax mu mel ni ñoo fas yéene rek sànni suñu ay ay kàddu waaw Youssou noonu la fay demee mm-hmm. ñu wax ci suñu xalaat ndax defe naa ne loolu tamit aayul mm-hmm. euh, comme ni nga ko waxee rek mu nekk loo xamante ni dañ ko xaw a seetlu lool ci biir euh, dëkk bi mm-hmm. waaye man daal li ma ci mën ci di wax mooy est-ce que moom waajuru góor wi ànd na ak euh, sagoom ndax pour man daal war nga ko mën a seexlu sa bopp surtout mu nekk nag gone goo xam ne tolluwul lenn ci lu dul ak benn man daal li may wax moom itamit mooy ay mbokk yi waa ji ci boppam bu ñu mënee saytu daal wér gu yaramam xool ndax wér na wala wér mooy mooy mooy li mooy li ndax koo xamante ni wax dëgg yàlla sa doom la yow waxuntuma waajuram sax nga seqal ba moom mu juddu nga dugg di bëgg seq ak euh, doom sa doom wax dëgg yàlla loolu jar na ñu saytu sa euh, maanaam sa wér-gu-yaram ba xam yow fan la toll parce que kooku ànd ak sa doom du def lu mel noonu doy na waar daal mhm. kon nag bala may jox kàddu gi nga tàggoo comme ñi ci coppaandalu émission bi du def lu dul nuyu waa Touba Ngame sama dëkk ñi nga xamante ñi ngi bàyyi xel euh, seen YouTube Reubeuss TV seen émission toj toj bi ñoom di ñu sànni ay ñaan gis nañ ñaan yi macha allah ñi ngi wax amin bu ndaw caam mu mel ni loolu am na solo waaw loolu am na solo Youssou wax dëgg yàlla parce que ñun waa Reubeuss TV loolu moo ñu fi tax a toog mhm. euh, di xool li leen neex ak euh, li ngeen ba gis loolu ci mhm. leen sargal ñoom waa Touba googu di dëkk Youssou Fall sama mag ju baax ji ñu leen di nuyu yéen ñëpp te di leen euh, sargal macha allah aja kon ma jox la nga tàggoo waaw tàggoo gi benn rek lay doon hmm. sant leen gërëm leen ñoom ñi àndoon ak ñun ci seen émission bi lee nga xamante ni moo di toj toj hmm. muy suñu mbokk internet yi hmm. di leen euh, jox dig daje nag euh, semaine bii di ñëw ci beneen numéro toj toj waaye avant loolu tamit ñu leen di xamal rek ne ñu ngi leen di jox rendez-vous fële ci Touba ñaanal nag képp koo xamante ni yaa ngi waajal Touba gi rek nga dem ci jàmm ñibbi gis ci jàmm loo ko ñaan rek eh, buur yàlla nangul na ko amin amin balaa loolu ñaamagul paas yàlla ñu am paas te am xolu joxe ko yàlla ñu ko joxe yàlla ñu am xolu joxe ko mm-hmm. eh, ba tax na mbokk comme ni ñu ko waxee saa su nekk lii li moo nekkoon seen émission toj toj ñu def nag loolu jox leen cant ak ngërëm waaye tamit di leen jox dig daje samedi ci beneen numéro jërë ngeen jëfati Reubeuss TV mooy suñu télé la chaîne de la vérité tasaare leen ko